أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala nekk ci suuratul baqara di jël tey aaya 264 ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala mu nekk benn aaya bu nu sunu borom di jàngal ñetti mbir bu ci njëkk mooy xurmatul manni wal aza fi sadaqat wa fasaadiha biha borom bi subhanahu wa taala mu ngi ñuy jàngal ci benn aaya bi nekk sunu kanam ne araam na ab jullit ci sarax bu muy saraxe mu ci ngistal wala mu ci ngand ngandul loolu dafa araam ci jullit wala mu ci wonewu wala mu ñàkk a yem sax ci wonewu ak ngandlu ak gis leen ma waaye mu boole ci ay lor loolu borom bi subhanahu wa taala mu ngi ñu koy tere ci aaya bi nekk sunu kanam lu tax mooy sarax jubluwaay bi na nekk ngir yàlla kii saraxe na saraxe ngir yàlla bu mu ci feeñ bu mu ci wonewu pour ñu dégg ko wala ñu gis ko wala yeneen yu demee noonu lu tax ñaar yooyu yàlla di ñu ko tere mooy dafay yàq sarax te kii saraxe tiyaaba la bëggoon waaye ñaar moo ko ciy dal bu fekkee dafa def ñaar yii su fekkee kii saraxe dafa dugal ci saraxam man ak aza mooy ngistal ak lor ñaar yi mu def da koy jural ñaar yan ñaar la koy jural mooy perte na alalam beneen bi mooy la perte na sarax bi amul sarax perte na alal ñaar nga def ñaar nga am loolu moo tax borom bi di ñu ko tere ñaareel bi mooy butlaanul sadaqa almannaan wal muzi wal marai bihima borom bi daf ñuy jàngal ci benn aaya bi ñu war a jël tey doom mbokk yi ne ki nga xam ne day sarax di ci boole lor ak ngand ngandulu ak gis leen ma ak dégg leen ma saraxam yàqu na amul benn tiyaaba perte na complètement kon ñett yi jullit bi génne alalam di ko fas yéene joxe na góor góorlu ba ngand ngandulu bu mu ci bokk rëy rëylu bu mu ci bokk gis leen ma bu mu ci bokk ñett yi saa yoo ko defee ci alal ji ngay génne di ko joxe te doon tuddoo doon ko tuddoo yàlla perte nga ñetteel mooy xurmatur riya dina njàng ci aaya bi ne yàlla dafa araamal ci ñun ngistal lan mooy ngistal mooy di def ngir ñu gis la wala ñu dégg la bum ci doon ci ñaar yooyu dafa xaraam lu tax mu araam wahiya min ashirki ndax ngistal dafa bokk ci bokkaale yàlla subhanahu wa taala wax na ci quran ci xadis yonent bi alei salatu salaam wax na ci xadis ne iyaakum war riya maa ngi leen di moytandikuloo ngistal fa innahu shirkul asgar moom ngistal mooy bokkaale yàlla bu ndaw boroom xam-xam yi bi ñuy xaaj bokkaale dañ ko xaaj ci ñaari xaaj sirkul asgar ak sirkul akbar bokkaale bu ndaw ak bu mag yonent bi biñ ko laajee bokkaale bu ndaw bi lan la lan la tont mu ne ar riya mooy ngistal kon mbokk jullit yi benn aaya bi ñuy jël ci ngoonu tey jii ñett mbir yi lañ ciy jëlee ñett yi lañ ci sunu borom subhanahu wa taala bëgg xamal pour ñu jëfe ndigal yi moytu tere yi ñu jël dars bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ۖ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سنبرم سبحانه وتعالى ginnaaw ba mu xemmem loo jullit yi lan mooy xemmem loo mooy mu bëgg loo leen mu soññ leen mu soññ leen pour ñu saraxe mu soññ leen pour ñu génne seen alal dugal ci yoonu yàlla ginnaaw ba leen borom bi soññee ci loolu ba pare yemu ci waaye daf leen a tere nag luy yàq sarax si bëggloo na leen pour ñu génne seen alal dugal ci yoonu yàlla waaye mu tere leen nag loo xam ne buñ ko defee sarax boobu dafay yàqu waaye yàlla bi muy wooway gëm yàlla yooyu jullit yooyu yàlla doon bëggloo doon soññ pour ñu génne seen alal joxe ci yoonu yàlla yàlla bi mu leen di woo la la leen woowee ban kàddu la leen woowee ban baat baatu ngëm waxu leen ee yéen nit ñi waxu leen ee yéen mag ñi waxul ee yéen ndaw yi lan la wax ee yéen ñi gëm yàlla nidaun min arrahman dafa am cheikh bu tudd abdul aboubacar jabir al jazair dafa bind benn téere tuddee téere bi nidaatu rahman téere bi li ci nekk mooy yaa ayyuha allazina amanu yi kese ñaata yaa ayyuha allazina amanu moo am ci alxuraan ku ko xam am buluuxul maram ñaata yaa ayyuha allazina amanu moo am ci alxuraan ku ko xam buluuxul maraam yi ñuy maye fi ñu jox la ci bismillah 80 68 88 89 kan mooy jugé buñ paree dars da ci question yi insha allah ñu wax ñen ñooy am bulughul maram ku nekk nag jàppal li nga wax waaw dafa am benn mbokk bu indi fi ay téere yu bari saa yu ñu waxee benn question ku trouvé rek ñu jox la borom bi subhanahu wa taala mu ne ee yéen ñi gëm abdallah ibnu abbas nee na jullit saa yu déggee yaa ayyuha alladina amanu na taxaw même boo jàngoon aaya bi même boo ko mokkaloon mu ne taxawal nga déglu daf lay digal wala mu lay tere yaa ayyuhal lazina amanu cib jullit mooy feu rouge bu tàkk nga doon dawal oto bu feu bi tàkkee nooy def taxaw daf lay wax defal wala mu ne la bàyyil tey sunu borom subhanahu wa taala bi mu woowee way gëm yàlla yi fii lan la leen di doyee bi mu ne yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm lan la leen wax mu ne laa tubtilu bu leen yàq lan sadaqaatikum seeni sarax bu leen yàq seeni sarax sarax bi ngay génne xoole ki jël alalam di ko joxe lu tax mu ko war a joxe mooy fi sabilillah na ko joxe ngir yàlla parce que alal gaa yi nee nañ alal dafa sax ci xol moo tax ñu ne tailleur yi bu ñuy ñëw yére poche bi fu ñu koy def ban côté gauche wala droite gauche fan fi tolloog xol bi moo tax yenn saa yi nga dégg waa ji ne fii sabilillah nga gis ku dugal loxoom xol bi ne ko attention moytul billet yi moytul billet yi moytul billet yi bu xol billet yi nga gis baaraam bi nekk ci biir ñeenti baaraam bi nekk ci biir naan nii billet yi di leen puus ba ba ci di jege mu daal di koy génne du ci yem sax de mu ne nii mu xool yu xonq yi bàyyi yu weex yi xool bi ne ko attention kiyal yu weex yi ba yu ba mu gis yu xonq yi mu ne daal di joxe gis nga yàlla nag nee na bu leen yàq seen sarax laa tubtilu bu leen yàq baat boobu ngeen di jàng mooy mubtilaatu salaa mubtilaatul wudu baat baa ngi nii mooy yàq mubtilaatul wudu mooy lu yàq njàpp lu yàq julli yàlla nee na bu leen yàq seen seen sarax laa tubtilu bu leen yàq sadaqaatikum seeni sarax yàlla bu waxoon bu leen yàq seen sarax yem fii rek doon na doy ñun ñëpp ñu def effort kenn ci ñun buy génne alalam mu bañ koo yàq mu def ko fi sabilillah yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na sarax bi gën ci sarax yi yonent bi muy wax juróom-ñaari nit yi yàlla di keral biir arsh boole na ci ku saraxee sarax bi nga saraxee sarax bi loxo càmmoñ bi xamul lan la ndeyjoor bi joxe allahu akbar yow yaay borom alal ji mu ngi sa biir poos dugal nga sa loxo sa poos nga génne ko bi nga koy joxe ku laajoon loxo gauche bi lan la main droite bi joxe du mun a wax lan la lu tax loolu lan la waa ji def ba gauche bi xamul lu droite bi joxe lan la def def ko nëbb def ko nëbb leeralu ko joxe ko kenn yëgu ko xam nga bu ñu nee mais gauche bi bu mu ko yëg kon ñeneen ñi ñeneen ñoo xi noppi mais léeg-léeg nga gis ku ñëw ci jàkk joxe tonu ciment nañ ko wax ci rajo bi man la maire ville man la diw man la directeur man la am na ñoo xam ne ci 10 000 rek la ñuy joxe 10 000 daan na mais dégguma ko ñu ko koy annonce ci rajo bi lu tax waxuñu ko xanaa dafa yeggul loolu sax léegi tane na mais xool leen ci dëj yi dëj yi carnet la ñuy indi semaine bi passée gis naa dëj boo xam ne ña fa ñëw cinquante mille lañ indi di ñibbi di xuloo ne kenn njukkalu leen te ñun fukki junni lañu indi mais kenn njukkaluñu gis nga fukki junni lañ indi bi ñuy ñibbi nee nañ kenn njukkalu leen kenn delloowuñu taraanga te ñun fukki junni la sunu càmmiñ woote téléphone ne nañ ko indi léegi fukki junni yooyu lan la jur est-ce que tiyaaba am na ci ñaar léegi mool moom lañ am perte nañ seen fukki junni amuñu yàlla ba pare mbokk gi tas parce que bañ nee njukkal ki yaayam dee dane man taluma loolu yéen yéen a ko tal taluma ay njukkalante gis nga mbokk gi tas na yàlla nag subhanahu wa taala lu mel noonu la ñuy tere ñun jullit yi moo tax mu ne nu laa tubtilu bu leen yàq sadaqaatikum seeni sarax bil manni lan mooy man firi woon nañ baat bi bi passé mooy mooy rëy rëylu ngand ngandlu wanewu waaw jéem a yëkkati sa dënn yëkkati sa doq ndax yaa joxe nangam loolu mooy man mooy lépp loo xam ne boo joxee xaalis bi ba pare du tax nga toog nag tranquille yem da ngay bëgg rek ñu xam ne yow la loolu mooy man loolu baaxul baaxul ci ab jullit di ko def ndax daf lay yàqal tiyaaba te yow loolu gars yi naan what time is money yow loo war a wax time is tiyaaba yow sa lépp tiyaaba nga war a am alal ji waru laa yëkkati yamul rek ci man waaye wal aza ak ay lor am na ñoo xam ne suñu joxee alal dañ ciy teg ay kàddu wala ñu teg ci ay xaste wala ñu teg ci xuloo joxe ba pare da ngeen a mën a ñaan waay da ngeen a sonale da ngeen a lakkale da ngeen a lëjle même ci jàkk yenn saay dañuy sëlma rek benn waaye ne asalaama ñu ne ko dama ci biti dama ci biti voilà allah dañ def ndànk bu la yàlla nattu woon yow moomu tey nga am problème bu la yàlla nattu woon yow mi naan demal ci biti yàlla nattu la nga taxaw ci digg jumaa ji nit ñi julli ba pare ngay wax kon di nga xam kon nañ def ndànk ñu xam ne alal ji ñuy joxe buñ joxe alal ji dafa war a nekk ci sutura nekk ci secret nekk ci teraanga waaye buñ ko joxe wulit qawlun maarufun xayrun min sadaqatin yatbauha azan yàlla nee na wax ju neex sax moo gën sarax boo xam ne dix mille boo xam ne da nga cee teg ku sonale nga da nga lëj la lakkale waay ay tere yee nga nit ñépp wala yuuxu gëdd arsale loolu du diine du diine yàlla moo nu ko tere lii alquran la du waxu kenn waxu yàlla subhanahu wa taala la sunu borom ne subhanahu wa taala kenn ci yéen bu mu yàq saraxam ndax rëy rëylu waaye ak teg ci ay lor mu ne kalles yi mu ngi mel ne waa ji nga xam ne yunfiqu day joxe maalahu alalam waaye ria annaas ngir ngistalu nit ñi rek waa jaa ngi joxe de mi ngi joxe alalam waaye alal ji muy joxe lan la ngistal kese kese kese kese joxewul ngir yàlla kooku lu mu ciy jële ku joxe sa alal joxe woo ngir yàlla loo ci jële tombeen tiyaaba te képp kuy joxe alalam rek ci lan nga ko war a joxe waaye yàlla mu ne kallazi yunfiqu maalahu riya annas ngir nit ñi ngir nit ñi yowmal xiyaam yàlla danaan ana ñu doon ngistal ñu jóg taxaw yàlla mu ne dem leen ci ñi ngeen doon won seen jëf ndax di ngeen fa fekk ci ñoom tiyaaba ëllëg fay jàng ngeen ci alquran yàlla mu ne allazina yurauna wa yamnauna almaun ñii ngistalu ba pare di tere liggéeyukaay yi kon ngistal baaxul ngistal mooy mun na bañ a nekk rek ci joxe alal ci lépp ci colu ci wax ci lu mën a doon même ci julli leen mën na dugg ci jàkk ji fekk ñëpp toog fekk ñëpp toog di xaar imaam wala di xaar waxtu yi say seytaane ne la demal ci kanam demal ci kanam nga puus ba ci kanam mu ne la dóoral ñaari ràkk nga won gaa yi waaye ñii doo seen morom gis nga seytaane mën na laa fu nekk mën nga faa ngistal te saa yoo ngistalee rek amooti tiyaaba benn waaye fanaane naa naafila naafila ba bët set mu koy woor loolu baax na wala baaxul mu xëy bëccëg ñëw seen atelier fi mu doon liggéey xaw a gëmmintu gars yi ne ko ah yow lan la mu ne dama fanaane naafila bi après bi ma xëyee sax dama wooraat yàqu na noonu la la iblis di def nag yonent bi nee na nit day xëy def benn tiyaaba bu toll ne jabalu uhud ci tiyaaba waaye iblis topp ko mu koy ŋacc di ko tànk di ko tànk di ko tànk ba mu toll ne pepp suuf mooy foo dem rek wax ne démb ci guddi def ah joxe naa fa dara non bu doon du man man la maa tax ñu añ maa tax ñu reer maa leen jox ñu ndékki ñii mus ñu gis seen papa man rek loolu ab jullit na ko moytandiku defal ngir yàlla bul wonewu parce que wonewu day yàq jëf yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñiy wonewu alxuraan moo ñu nettali ñooñu dañuy ñëw yowmal qiyaam ñu fekk liñ doon def yépp def naa ko habaan mansuur pënd bu tasaaroo wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuur moo tax sa jaamu yàlla bul ko yemale rek ci sarax lu mu mën a doon fexeel ba bul ci ngistalu fexeel ba bul ci déggtalu saa yoo ci ngistaloo saa yoo ci déggtaloo dootoo am tiyaaba yenent bi nee na ku ngistalu ñu gis la ku déggtalu ñu dégg la loolu mooy sa tiyaaba pare nga jeex na danañ yàlla aar mu ne ñooñu nga xam ne dañuy ngistal ci seeni sarax lan mooy seen beneen melokaan wala yuminuuna gëmuñu billaahi yàlla kuy def loolu gëmul yàlla ndax boo gëmul ne yàlla subhanahu wa taala moom ngay moo tax ngay def kon da nga bàyyi lim la tere ndax lii yàlla moo la ko tere moo ne ne laa tubli laa tubtilu sadaqatikum bil man na comme yàlla moo la tere nag léegi lu war ci yow mooy nga bañ a ngistal moo tax mu ne ñooñu wala yuminu gëmuñu billaahi yàlla gëmuñu yàlla wal yawmil aaxir gëmuñu àllaaxira ëllëg aaya yu mel nii dafa bëri ci alquran chaque jour borom bi subhanahu wa taala def ñu suñu waxee al imaanu al imaanu lu mu ciy teg yowmil axir chaque jour yàlla bu waxee al imaanu billaa rek lu muy teg yowmil axir al imaanu billaa al imaanu bil yowmil axir lu tax ñu lënkale ñaar yooyu chaque jour parce que ku gëm yàlla day bàyyi xel alaxira lu tax da ngay dajeeg moom man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalih saa yoo gëmee ne di nga dajeeg yàlla lu mu lay jural mooy da ngay taxaw ci jëf ju baax ban jour la ñuy dajeeg yàlla mooy yowmul axir moo tax mu nekk ruknul xaamis min arkaanil iman mu nekk keno juróomeel ci kenoy gëm yàlla subhanahu wa taala kon képp koo xam ne gëmul yàlla rek du gëm àllaaxira parce que ki gëm yàlla mooy taxaw ci préparer àllaaxira ki gëm yàlla mooy taxaw ci préparer àllaaxira loolu moo tax chaque jour aaye gis nga même hadis yi man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yusi jaara man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim gis ngeen ci alxuraan nag da ngay gis chaque jour yàlla subhanahu wa taala man amana billahi wal yawmil axir ndax al imaanu bil yawmil axir mooy tax doomu aadama xam fu muy teg tànkam ëllëg mooy tax doomu aadama bàyyi xel boromam subhanahu wa taala ndax xam na ne bisa gi ñëw dinañ ko génne ci biir bàmmeeli mu dajeeg borom bi tabaraka wa taala comme loolu day am nag comme loolu day am jullit bi na bàyyi xel boppam ba nga xam ne li ko yàlla subhanahu wa taala sant daf koy def lim ko tere daf koy bàyyi borom bi yemul ci loolu mu ne fa masaluhu misaalu waa jooju nga xam ne day joxe alalam di ci boole ngistal di ci boole rëy rëylu di ci boole wonewu waa jooju nga xam ne gëmul yàlla gëmul alaxira fa masaluhu misaalam ka masali safwaan mu ngi mel ne aw doj mi ngi mel ne xeer xeer bu rëttax bandang suuf tegu ci kaw xeer bi suuf soosu rëttax xeer boobu rëttax xam ngeen xeeru tiim nu mel dafa ritax wala dafa ñagas xeer boobu ritax bu ci suuf tegoo su ngelaw uppee xeer bi suuf si nu muy def ah day naaw wala day taxaw day naaw ngelaw laa wax de léegi nag bu ci ndox dalee da koy raxas ba mu set yonent bi nee na kii joxe alalam di ngand ngandalu wala muy réy réylu wala muy ngistalu noonu la mel est-ce que ko am na tiyaaba mi ngi mel ne xeer boo xam ne fa masaluhu ka masali safwaan safwaan mooy xajrun amlas mooy xeer wu ritax comme xeer yi ñuy tiimee tey alayhi turaab ci kaw xeer bi suuf nekk ci bi ci suuf nekkee lan moo ñëw ci kaw xeer bi lan moo ñëw ci kaw suuf soosu fa asaabahu daa di dal xeer bi waabilun ndox matarun shadid ndox mu tar taw bu dëgër taw bu bëri daal di ñëw taw ci kaw xeer bi suuf soosu lu ngeen ci xam ndax bu ngeen xëyee suba di ngeen ko fekk ci kaw xeer bi fa tarakahu suuf si ndox mi bàyyi na xeer ba soldan mi ngi wow koŋ amatul lu ci taq wow na koŋ amatul lu ci taq borom bi ne subhanahu wa taala waa ji nga xam ne day joxe alalam ci yoonu yàlla waaye da cee boole ngistal lu tax ci yoonu yàlla la koy joxe dañu ne ñëw leen ñu tabax hôpital ñëw leen ñu tabax daara ñëw leen ñu bënn teen ñëw leen ñu kon ci yoonu yàlla la ko indi waaye iblis fexe na ba tafu ko ba yàqal ko loolu mu bëggoon def fexe na ba dugal ko ci leneen léegi nag misaalu kooku lañu borom bi di bëgg a wan borom bi mu ne mu ngi mel ne xeer woo xam ne dafa ritax suuf tegu ci ndox ñëw guddi wala bëccëg wala waxtu wu nekk daa di taw ci kaw xeer bi ndox mi nan la bàyyee xeer bi fa tarakahu soldan mu daal di koy bàyyi mu wow koŋ koŋ koŋ kenn fekkatu fa suuf laa yaqdiruuna ala sayi mimma kasabu ñooñu nga xam ne ñoom ñoo dépassé woon ci yoon seen alal ci yoonu yàlla yàlla mu ne laa yaqdiruuna amuñu fekkuñu ala sayin ci dara mimma kasabu ca la ñu dépassé woon fekkuñu ko seen compte ñu bindal leen ko lu tax binduñu ko lu tax enregistré wuñ ko ku bind ku def lu baax malaaka yi dañ la koy bindal wala man jaa bil xasanati falahu asari am saaliha waa ji joxe nangam kenn bindu ko lu tax parce que nekkul ngir yàlla am na benn waay boo xamante ne da doon dundal yaayam da ko daan toggal yenn saa yi mu sang ko yenn saa yi mu boot ko waaye bi mu deewee malaaka yi jël ko bugg ko yóbbu àjjana yàlla mu ne yóbbu leen ko safara malaaka yi tiit daan ne yàlla waaye bi ñu demee ci ay dossier gisuñu ci bàkkaar de kii lu mu def yàlla mu ne waaw yéen ci biti ngeen doon enregistré man maa doon enregistré ci biir yéen ci kaw ngeen gisoon man yàlla maa nekk ci biir xol yi rabbukum a'lamu bi ma fi nufusikum kii lan la doon def malaaka ne yàlla kii da doon liggéeyal yaayam yàlla mu ne lu mu doon def moo leen ko gën a xam ñu ne ko da ko doon toggal yenn saay yenn saay yenn saay yàlla mu ne loolu rek ngeen gis ñu ne waaw mu ne xanaa xamu leen bu toggee ba jox ko mu lekk mu jox ko mu naan ba pare lu muy wax ñu ne déedéet mu ne day wax yàlla na dee ba ma noppalu allahumma xuzha wa arihni minha yàlla xanaa mënoo jël kii ba ma noppalu kooku la taxoon muy def est-ce que yàlla la lu taxoon muy def pourtant loolu léegi moo ñuy dal ci sunu kër yi moo ñuy dal ci sunu lépp léeg-léeg nga gis koo xam dañ naan non góor góor gis nga kii muñal ko defar rek kii muñal leen ko xam ngeen ni kii ndeysaan léegi sax yenn saa yi mag ñi wax ko daan ne Maodo ku lëkki lan ku lëkki voilà ku lëkki njuuriik e daande maayo jan ɗo yanat mo yanaani yanat dégg nga ñu ne màgget ci biir kër mi ngi mel ne garab gu dëng ci buntu dex xam nga garab gu dëng ci buntu dex ku daanu day daanu ku daanuwul day daanu ñu ne noonu la màgget mel muñal ko tox ko rek kii léegi mu dee nga noppalu muñ leen rek ku jàppe noonu sa waa kër nag yow doo am benn tiyaaba ku jàppe noonu say mbokk doo am benn tiyaaba da ngay def fii sabilillah da ngay yor say mbokk ngir yàlla jàngeen histoire Abu Bakr ak Mastax Mastax moo tuumaaloon yaay Aysa njaaloo Abu Bakar ne ko yow yaay tuumaal sama waa kër yow pare naa ci yow waaw yonent bi ñëw yàlla subhaanahu wa taala wàcc aaya ne xanaa bëggu leen yàlla baal leen Abu Bakar mu ne ah kay man kay bëgg naa yàlla baal ma yonent bi ne ko kon dépasse bi bu mu wàññeeku Abu Bakar daal di double dépasse bi daal di koy bàyyi ci kër gi mu toog kon chaque jour li ñu yàlla di soññ mooy bu ñuy génne sunu alal ñu mooy tandiku lu koy yàq ñu def fii sabilillah waaye nañu xam ne am na menn benn waay benn xaj benn seytaan bu ànd ak ñun boo xam ne du ñu bàyyi mukk ñu def mbir yi génne ci sunu bakkan ñu def mbir yi génne ci sunu xam-xam ñu def mbir yi génn ci sunu mën-mën gis ngeen xaaruna bi ko yàlla mayee ala lan la wax wala mu ne yàlla moo ma may mu sant yàlla mu ne innama utiituhu ala ilmin indi lii de yàlla ma ko dañ ma koo jox ndax sama capacité inti inti lan intellectuelle dama am xam-xam quoi buy man technocrate laa gis nga moo tax duma sëme moo tax gis nga moo tax innama utituhu ala ilmin indi wala mu ne indallah mu ne indi mu génn yàlla même boroom xam-xam yi dañuy wax Muusa li tax keroog yàlla daaneel ko histoire am ak xudar bi ko xudar ne mënumaa ànd ak yow mu ne ko non sa tajidunu insha allahu saabiran ding ma fekk ma nekk muñkat dafa génne boppam ci mbooloo mi min as-sabirin nit chaque jour na nekk ngir yàlla bu wax ngir yow ba mu taxee ci banu israel ñu ne ko ku fi raw mu ne yaakaar naa man la yàlla mu ne ko du yow am na ku la raw mu ngi majma'u bahrayni xam-xam la doole la iblis lan la waxoon bi ko yàlla ne su jootalal aadama lu mu wax ana xayrun minhu maa ko gën ñu ne ko lu tax nga gën ko mu ne xalaqtani min min naarin wa xalaqtahu min tiin yàlla man yaa ngi ma bind ci safara kii yaa ngi ko bind ci ban gis nga mu yàqule nañu bàyyi di wane sunu sunu sunu sunu ci mbiru diine saa yoo ko defee yàqule nga ak lu mu mënta mel ak lu mu mën a doon saa yoo wanee sa bopp ci mbiru diine perte nga ak lu mu mën a doon nag perte bi sax bi ci gën a tane mooy bi nga xam ne yow mii lii nga def perte nga waaye bu la yàlla bàyyee noonu ci biir ngay dem di defe ne yaa ngi ci lu baax ba yowmal qiyaamati nga ñëw defe ne am nga tiyaaba ñu ne la yow kat defoo woon ngir yàlla perte nga loolu yëpp nag benn mbir kese kese kese kese moo ñu ciy dimbali pour du ñu yàqule ci sarax benn mbir loolu moom ku ko turbe rek ñu jox la benn buluuxul maraam benn mbir kese moo ñu ciy dimbali keneen keneen benn mbir kese moo ñuy dimbali ñu mën a contrôler ba suñu jëf yépp lu mu mën a doon lii nii du ko yàq benn mbir kese la da ngaa yëkkati loxo bismillah ndeysaan kon dernière question an ah non bàyyil ma wax ko wax naa anniya waxoon nga non daanu nga yéene yéene yéene kii saraxe lan mooy différence su sarax bi ak maye bi yéene kii jàngu jàngu kii jàngu lan mooy différence diggante jàng ak jàpp yéene yéene booy saraxe nga yéene lii ngir yàlla laa koy joxe looy def nga yéene nga taj di duniya bee salaat yéene bi lii li tax ma koy def lan moo tax ngay ñëw dars lu tax ngeen ñëw dars samedi ku ñëw ngir non damay dem parce que dars perte nga ku ñëw ngir yàlla am nga tiyaaba ku ñëw ngir dégg-dëgg jëriñu ci am nga tiyaaba ku ñëw ngir leneen perte nga coono dong nga ciy jële sa dox lu mu sori sori foo jóge ñëw fi perte nga moo tax chaque jour nañuy yeesalaat yéene yi même sa même même ci kanamu ci kanamu sàppe ngay julli fesa fexeel nga yeesal yéene bi fexeel nga yeesal même nga sol say daal di génn jëm ci jàkka ji fexeel nga yeesal sa yéene lu tax ngay julli ji bul dem mukk ngir waa koñ bi ne kii de comme julli kaata ak a mën a julli comme li baa ji doon wax mu ñëw fekk jabaram quoi tukki mu ñëwaat fekk jabaram du julli mu ne comme un prophète di julli rek comme yonent bu yàlla yónni mu ne jabar ji yonent la yàlla ko yónni ndax mu ngi julli ndeysaan foofu la sénégalais yi toll mbokk yi benn mbir boobu rek mooy tax lépp lu ñu def mu set mu sell mooy yéene yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale na ko mu ne ay nit a ngi nii yoo xam ne ñoo ngi Medina xeexiwuñu xuusuñu xur yi gàdduwuñu ay jaasi mais tiyaaba bu ngeen am ñoom am nañ ko saxaaba yi ne ko ah nu mun demee mu ne seen yéene la la yàlla fay innama al amal wa innama li kulli imri'in gis ngeen wa innama li kulli imri'in ma nawa kenn ku nekk la nga yéene moom rek ngay am moo tax gis nga mbir yu bëree bëri fii duñu am tiyaaba da ngay gis koo xam ne mbokkam dafa feebar lu muy wax xaaral ma daw seeti ko balaa wallaay amoo tiyaaba nga gis ku mbokkam de mu ne xaaral ma jaale ji wallaay balaa ñu may amoo tiyaaba saa yoo ne balaa rek amoo to tiyaaba da nga war a dem ngir yàlla du pour nit ñi wala ah non xaaral ma dem ci xaaral ma dem ci mbokk yi quoi parce que su ma demulee amatoo tiyaaba amatoo tiyaaba mbokk yi ñoo lay fay yàlla du la fay yàlla génn na ci ndeysaan yàlla génn na ci moo tax nañ def attention sunu lépp na nekk ngir yàlla su noppee nekk yàlla coono kese la jàng ngeen ci xadis bu doy waar xadis bu tiitlu bu ragallu boo xam ne ñépp la war a tiital yonent bi bi muy wax ñett ñi jiitu safara mu ne jàngkatu alquran ki doon joxe alalam ci yoonu yàlla ak ki doon jihaad ki doon jihaad bi ko yàlla ne bi yàlla ne malaaka yi yóbbu leen ko safara mu ne man ak li ma def nangam yi ma rey sama fas bi dama doon rey ba tànk yi xonq deret yàlla mu ne ko yaa mun a fen yow da nga doon xeex pour ñu ne jàmbaar nga nit ñi wax nañ ko jeex na danga bëggoon ñu ne jàmbaar nga gis ngeen keneen ki yàlla ne ko dangaa bëggoon ñu ne sa baat bi dafa neex keneen ki yàlla ne ko dangaa bëggoon ñu ne ku baax nga ku mun a maye alal nga tey kan moo ñemee benn waaye toog fii yor ay enveloppe di joxe ku ne ngir yàlla mu jox la nga ni kii ku bon la ku ñeme loolu kan moo ñemee gis kuy jàng alquran nga ni kii li muy def baaxul kan moo ñemee fekk kuy jihaat nga ni kii waaye xoolal yàlla moo leen feeñal c'est parce que ñooñu kenn ku nekk ci seen biir xol lam doon def nekkul woon ngir yàlla kon mbokk jullit yi borom bi subhanahu wa taala nee na ñooñu ñi mel nii seen jëf nii ndox mi effacé suuf si ci kaw xeer bi raxas ko ba mu set mu bàyyi xeer bi mu wow koŋ laa yaqdiruuna ala shay'in mimma kasabu bu ñu ñëwee ëllëg ñu fekk lañu dencoon seen compte fekk ñu fa dara loolu lañu yàlla di tere loolu lañu yàlla di moytandikuloo mu ne wallahu yàlla laa yahdi du jubal mukk alqawma nit alkaafirina yéeféer chaque jour ma wax leen bu ñuy tafsir fii bu ñuy jeexalee benn aaya nañuy bàyyi xel aaya bi fu muy jeexee aaya bi fan la mujjee yàlla nee na duma jubal yéeféer kon yéeféer du jub kuy xaar yéeféer jub kuy xaar ay nit yoo xam ne ay yéeféer lañ ñu jub mooy ku dem ba ci montagne xeer nga jifa di xaar mu sax ndax dina sax yàlla nee na duma jubal nit ñoo xam ne ay yéeféer lañ baatu yéeféer mooy lan alkaafir lan mooy kaafir mooy kuy sakk jëf kaafir mooy kuy sakk jëf lan mooy sakk jëf sakk jëf mooy lan mooy nit rek mooy ni jigéen ñi def rek nga am jabar nga takk ko bi muy am 15 ans ngeen sëy ba mu am 70 ans ñaata at ngeen sëy bi muy am 15 ans nga ko marié bi mu at ba mu ba ngeen am juróom-ñaar fukki at mu xëy ne la yow musuma gis ci yow lu baax yow yow amoo lu baax yow xanaa ñii ñoo la xamul rek musuma gis sa lu baax yow loolu mooy sakk jëf mooy weddi njekk nit defal la lu baax nga gas bu mu xóot daal di koy suul ne gisuma ko loolu mooy kaafir moo tax yàlla mu ne xoolal nit li ko yàlla defal yéeféer xoolal nit ki weddi yàlla li ko yàlla defal yàlla def ko nit ñun ñu toog fii bi yàlla di bind mbindee fi kan moo def demande ne ko non man nit lay nekk aca yëkkati sa loxo bi yàlla di def xar-xar mbaam mbaam nag nag ginaar ginaar mbelantaan fas kan moo def demande ne non yàlla bu ma def mbaam de nit simila duma naa njool naa xees waaw nga signé dugal bureau bi kan la kenn yàlla moo ko toog ba mu neex mu def la nit wala bi mu la defee nit mu def sa yépp mat ñaata ni ngay gis fi amuñu lu mat ci ay yaram amul ko amul bët lu mu def yàlla amul ko amul nopp du dégg amul ko amul gémmiñ du wax amul ko amul loxo amul ko am tànk yow yàlla def la mu mat sëkk allahu akbar est-ce que def nga demande est-ce que yàlla defalu la dara bët yi nga yendoo di xool suba ba ngoon mën nga ko fay kan ci ñun fii moo mën a fay li muy xool nékkati loxol kan ci ñun fii moo mën a fay li muy dégg ngelaw li ngay nooy oxygène bi kan moo ko mën a fay kan sa tànk yi li ñuy dox ku ko mën a fay léegi nag doomu aadama yàlla defal ko lii lépp mu gas ba mu xóot mu ne yàlla defaluma dara ah daal di koy suul moo tax yàlla mu ne kii kaafir la mooy kuy sakk jëf moo tax mu ne wallaahu yàlla laa yahdi du jubal alqawma nit alkaafiruun yuy sakk jëf yàlla du jubal alkaafiriin nit ñuy sakk jëf nit ñoo xam ne yàlla da leen di may ñu ne mayuñu yàlla jox leen ñu ne joxuma yàlla sàmm leen ñu ne da ngay xëy suba gis benn sénégalais nga ne ko sawa mu ne sénégalaisement saa yoo déggee ñu ne la sénégalaisement loolu mooy lan mooy baaxul doo dégg mukk Sénégal ku ne alhamdulilahi rabbil alamin soo fekkoon waa ji di liggéey ci bureau bi ñuy defaree dollars yi sax mu ne sëñ mu ne yuu Sénégal ñëpp wuuu kenn doxul fenn kenn doxul ah duñ ne alhamdulilah am na ñu tane waxal alhamdulilah lazi bi ni amadité musaal am na ñoo tane mais fii koo fëgg buntam rek ne ko sëñ bi mu ne la noo temps yi dara doxul non xaar bu beneen yoon quoi nga ñëw même sa jabar sax bu la laajee dépasse nga ne ko temps yi doxul teel ci lii sa papa sax bu la laajee dara nga ne ko temps yi dara doxul li nga ko doon jox nga wàññi wala sa yaay li nga ko doon jox nga wàññi yéeroo balale marché oo welaani xool nde welata kañ lay neex dafa am benn sëriñ bu ñu ko ne addina bi neexul mu ne kañ la neex bi ñu doon rey yonante yi boobu la neexoon bi ñu doon jàpp saxaaba yi di leen daggate loolu boobu la neexoon kañ lay neex kon bu fekkee addina bi ko yàlla bindee ba léegi neexul kañ lay neex kan moo mës a dégg ku ne addina bi neex na bu ngeen ko déggee doo mës a dégg nit naan tey neex na waaw duñ sant yàlla yonent alayhi salaatu wasalaam ndeysaan su tolloon ci jafe-jafe wala mu toll ci mbégte day wax alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimu salihat bu affaire yi méttee ba tar mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal xoolal yépp day wax alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat alhamdulillah ala kulli xaal kon mbokki jullit yi nanu delloo si xel suñu bopp ñu xam ne yàlla subhanahu wa taala li mu wax moom muy dëgg te mooy moom de du jubal ay nit ñi nga xam ne dañuy sakk jëf du leen jëme mukk ila ma yasiduhum ci lu leen di texeloo wa yukallimuhum li ajli kufranihim yàlla du wax ak ñoom mukk ndax sabab bi mooy ñoom li ñu weddi yàlla subhanahu wa taala kon nañu moytandiku bàkkaar bu garaaw bi nga xam ne mooy lan mooy bàkkaaru sakk jëf nañuy sant yàlla nañuy gërëm yàlla su neexee su mettee yonent bi dafa ne Omar amuminuna antum ndax yéen gëm ngeen yàlla Omar ne ko waaw mu ne fa ma alaamatu imaanikum luy wane ne gëm ngeen Omar ne ko narda bil qada su yàlla dogalee ñu nangu wa nashkuru fi raxa bu neexee ñu sant wa nasbiru alal bala bu ñu yàlla nattoo ñu muñ kon loolu moo doon dar su tey ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp jéggal ñu suñuy njuumte assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu la ilaha illallah amin